déjà par rapport au gouvernement qui fait quand même la une ci àddina bi yëpp les gouvernements les plus stables sont les plus efficaces ça c'est déjà un principe et que lii dafay wane rek ne ñoom defuñu un gouvernement pour régler les problèmes des Sénégalais parce que nous en avons quand même problèmes on va les lister mais il faudra apporter des solutions dañoo def un gouvernement de survie politique majorité présidentielle quand même depuis les élections locales de 2022 bi ñu ñàkkee les principaux centres urbains les grandes capitales certaines régions dañoo change gouvernement bi tuuti taxawaat législatives yi ñëw ñëpp gis ko y a plus de majorité la majorité c'est l'opposition dafa wane ne la majorité est dans une logique descendante et de perte du pouvoir inéluctable moo tax ñu def un gouvernement entre guillemets de politiciens parce que c'est que des hommes politiques il parlent de combat mais li ñu doon xaar c'est un joli mot combat mais li ñu ci doon xaar mooy contre nos jeunes qui sont à Dakhla contre la cherté de la vie électricité bi nekk problème suñu dëkk bi assainiruñ ko donc on attendait des combats plus important en termes de politique publique yokk ci nag suñu xoolee les personnalités qui ont été là ku ci nekk région ba mu nekk rek majorité bi dañ ko fa fët fët yu métti sur le plan électoral maintenant ñun Sénégal yi dañ ne mais un gouvernement il est là pourquoi un gouvernement il est là principalement pour des politiques publiques pour njëriñu ñëpp mais il n'est pas là que pour une élection présidentielle ndax ndax lan mais eux ils ont publiques le premier ministre a les ressources publiques les missions des ressources publiques est-ce que li ñuy acté fii ci gouvernement bi mooy les ressources publiques vont servir les leur élection ou est-ce que les ressources publiques dañuy jëriñi les priorités nationales moo tax honnêtement je leur souhaite bon vent comme tout bon Sénégal parce que ñoom it seen réussite mooy suñu jàmm ñun mais awma ci yaakaar pour une raison simple li ñu réussirul depuis 2012 ce n'est pas en 120 jours donc 4 mois qu'ils vont le réussir Euh, awma awma ma trop euh, euh, sentiment que ils vont mettre les bouchées doubles pour yeggali chantier yi corriger les nombreuses lacunes et insuffisances il y des distorsions et aussi dafa am apprentissage dans une organisation comme ministère en quatre mois de temps nga ñëw xool dossier yi équipe bi xam say ressources humaines xoolaat sa budget adapté waat ko Euh, la loi de finances est-ce que dana am rectificatif en fonction des priorités très honnêtement c'est encore décevant soo koy wax dañuy foog ne parce que bon am na leen lu nekk ci gannaaw mais li ci nekk ci gannaaw rek mooy on ne peut pas utiliser un gouvernement pour faire l'élection d'un candidat li gënoon rafet ci àddina bi mooy un candidat premier ministre il doit démissionner dem ci terrain bi parce que suy dugg suy dugg aujourd'hui terrain bi kan may dem est-ce que c'est loolu aussi jàngat la Euh, ma am ci déception yokku ci nag beneen déception mooy 39 membres dëgg la nag les sénégalais sont très compétents am na ñu bëgg liggéey mais morcellement bi ñu def 39 ministres dans un petit pays comme le nôtre 18 millions d'habitants l'équivalent de la population de Lagos ou d'une grande ville asiatique et cetera euh, xalaat naa ne liñ li ñu yaakaaroon en 2011 un gouvernement sobre vertueux efficace euh, nekkatu